président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko tongu ci njombaxtaluk nguur gi benn toogu ñaari kàngam jot nak ñi daat leen di sa setantal bu baax a baax ku ci nekk lay sab taxawaay mu doon waxtaan wi nga xamante ne taaj na ko tey jile yéenekaay yu groupe E-Media Invest gi doon bés bi le jour ci lañu seen Alioune bu bu Afrikajom sant mu daal di ciy sànneeku ne gisu ci lenn loo xamante ne ni le lu ñaaw la ci mbir mu ni mel waaye nag kii di Alioune ma ngay leeral ne nguur gi ci boppam nag ngir rek moytandiku lépp lu di wàllu ko mel mi ngi woo gouvernement bi mu amal ab communiqué bu ko defee ñu xam bu baax a baax Jomaay ak Sonko ku ci nekk lan mooy sa taxawaay ak la ngay def ko dindi ci njombaxtaluk nguur gi lu jëm tamit ci nguur gi ba tey jamono jile mi ngi dalal ay audience rek dooni kilifa yu cosaano ci bitim réew loolee nag ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko daanaka dafa jël place kii di Jomaay moom nag tamit gisu ci lenn lu mu a araamal ba tey moom Alioune Tine la def guddi yi ñu toll l'info yi ne kaay pause bu kenn xaarutoon ci gouvernement bu Sénégal ci kilifteefu ko président Bassirou Diomaye Faye muy war a dalal nag ki nga xamante moom moo di Tony Blair yéenikaay gi ne waa Pastef nag lépp lu lekkoon wàcc nañu ko tey ak lim fa yéenikaay may fàttali ne kii di Tony Blair moom xel-xelaatoon ne mukk ak nguur gu yees gile dana dugg ci palais bi lim fa yéenikaay di fàttaliku ne njiitu gouvernement bi doon Ousmane Sonko fii la ko yàkkoonam xëy yàqapa deram wax ko Diomaye Faye yéenekaay gi daal di tënk ne la woon woon na moom ci làmmiñ képp la yem waaye yeggul ci jëf Walf Quotidien mel ni ku koy dëggal ne Diomaye dalal na Tony Blair journal Walfadjri ne waa Pastef daal seen kàddu démb waroon nak yooyu tey te sore nak tamit wàllu ko jëf journal bi xel matine keroog ba ñu yégee ci njombaxtalu ko nguur gi la ñu lépp lu ñu waxoon tegaat yeneen i pexe Guy Marius Sagna ay kàddoom ci ëttu yéenekaay bi doon Jeune Afrique ëttu yéenekaay ngay bàttali ay kàddoom ne tey la gën a saxal yaakaaram ak njortul rafet ci nguur gu yees gi ba lépp lu mu sasoo mën koo bay ba mu mat sëkk wàccoog ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi waaye loolee ndax dana fekk Ousmane Sonko ak Jomaay ci seen sago ñi daal di koy yore nguur gi am détt laas yi ni kay ni leer ba leer mooy jamono jile am na lu ñuy togg ci wàllu ko xeex leen te loolee nag ab coalition bu ñu duppee triple XL la ñi dajale nag woowele say mooy ñi nga xamante ne dañoo toogaale ab mer ki parti APR ak ay libéraux ba ci socialiste ñu waxtaane wàllu ko tabaski gi jagasi na lu yées fukki fan rek daañ ci dal di yegg jamono jële nag dëgg la xattuuru na bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien li ñu soxla woon ci wàllu ko xar yi am nañu ko waaye ki mu të mooy ki nga xamante ne moom moo di góorgóorlu bi ngir rek mu am buumam gu mën a yeew ci baatu pa xaram ak ay njëg yoo xamante ne ni le diis na gan na ci moom néew yu doole ji ma nga bàyyi ko ci reportage moom yéenekaay gi di Sud Quotidien dikkaat na tamit di laaj ana kañ la ñuy tabaski la tribune yéenekaay mel ni ñi ngi jëm ci feetuk ñaari tabaski ndax ñi nga xamante ñoo di coordination musulman du Sénégal fukki fan ak juróom ci weeru ko juin la ñuy julli waa Konakogne bisub tabaski altine lay tolloog fukki fan ak juróom-ñaar